MEDES di xam ne ni kon séntu woon nañu lii ci Sénégal moo taxoon sax ñu daal di nas li ñu duppee forum du premier emploi nga xamante ne ñaar fukkeelu édition bi ñu ngi koy waajal ni ki ëllëg ci talaata gi ba gannaaw ëllëg njiital MEDES di xam ne ay coppite yi ñu ci war a amal innovation yu rëy waaye tamit thème ren bi nga xamante ne souveraineté économique lañ ci taamu ndax dañoo jàpp ni mbas mi nga xamante ne jaar na fi wane na ni réew yi moom faaw ñu mënal seen bopp ci bépp anam xëyum ndaw ñi ak ndaje bu yaa bi nga xamante ne njiitu mi mu ngi ko ci waajal di conseil présidentiel PDS di Mbagnick Diop rafetlu na ko naam waaye ma ngay sàkku mu bañ nekk rek beneen ndaje bu ci tegu gannaaw yu fi amoon yépp te daanaka benn saafara andiw ko ci moo tax muy sàkku ci kilifa yi ñu fexe ba dugal ci secteur privé bi waaye tamit ñi seen xam-xam màcc ci wàll wi di ay spécialiste fexe tamit ba kuréel yu bëri yi ñu fi samp ñu xoolaat doxalin wi bu ko jaree sax ñu daal di leen lëkkale ndax ndax xëyum ndaw yi moom yàgg nañ ko waxtaane yàgg nañ ciy def tamit koppar gu takku waaye ba léegi gisaguñu saafara bi moo tax ndaw ñi moom ba tey am la ci ñoom xëyub ndaw ñi mooy mennum ponk bu lëkkale léegi njiitu réew mi Macky Sall ak Aminata Touré l'observateur moo ni xamle mu gis ni kon diggante Macky Sall ak jëruñoom ju njëkk ja woon dara doxatu ca lu mooy wàllub xëyub ndaw ñi yéene kaay groupe Futur Média bi di xam ne ni kon Mimi Touré ci boppam ba ñu ko dàkkee conseil économique social et environnemental ba léegi jokkowul benn yoon ak ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi Macky Sall suñu naataango yi di xam ne ni kon yëfi yamu ca ndax Mimi Touré ci boppam dafa am lu muy waajal ci suuf te moo nga ciy nas ay pexe pexe pexe yu opposition bi nasoon yépp lajj na ba noppi Benoît Sambou moo ni xam ne ci yéenekaay bi di Vox Populi muy àddu ak suñu naatangoy ci lu jëm ci li ñuy toxalaat élection locale yi mu gis ni opposition bi ci boppam ñoom ci seen wàllu bopp ñàkk déggoo am na ci seen biir ci teewal mouvance présidentielle bi ci waxtaan wi moom gis ni opposition bu Macky Sall bi ci boppam dañoo tëlee am ki nga xamante ne mooy seen jiit wax na ci mbirum Karim Wade ak Khalifa Sall mi nga xamante ne Benoît Sambou ñaan na ñu daal di delluwaat amaat sañ-sañ ngir mën a wote ji sàkku baatu askan wi élection locale yooyee Macky Sall ak nguuram am na lu ñuy nas ci suuf ba tax ñu jàpp ni war nañ koo taxal ñu taamu ci nag di béer ñaar fukki fan ak ñett wala fanweeri fan ci weerub janvier atum 2022 li waral nguur gi taamu bés yooyee mu ngi ci biir yéenekaay l'Observateur ci biir laas ñoo ngay fësal xeex bi nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar fas yéene na ci sóobu ngir élection locale yi rawatina ci ndakaaru yéenekaay bi di xam ne ne kon kiy ndakaaru ci boppam ci biir coalition Macky Sall bi xamante ne moom lañu ci nemmeeku laas di dikkaat ak ñun ci séminaire bi nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar daf ko amal ci Ndakaaru la ca tukkee ak ñàkk teewaay amadu Ba ndey Sali may Diop Maimouna Sissoko Moussa si ak ñeneen Les Échos feelu ko ci muy xam ne ni kon jëwriñ jawoon amadu Ba naka noone Mame Mbaye Niang ñoom ci boppam dañ leen a zappe waaye ndaw ñi nga xamante ne ñëw nañu tamit ci ndaje bi daanaka déggawuñu ci lu ñu fa jëlee ni dogal dogal bi Abdoulaye Diouf Sarr jël ci lu jëm ci coowal garab yi nga xamante ne kon dañu ko teg loxo ca xamante ne tàkk nga ci yoon dina rëkk sa ndigg ay kàdduwam moo ngay fës ci vox populi jëruñ ji ñu dénk wàllu wér yaram di ci xam ne ni kon mbir mi moom kenn mën a cee noppi faaw yoon daal di ciy àddu maître El Hadji Diouf mi nga xamante ne mooy layal chinois yi tey ji tamit ci mbir mi dina ci janoo ak taskatu xibaar yi bu ñu sukkandikoo ci vox populi sud quotidien di dikkaat ak ñun ci li ñuul ci soow mi coowal garab yooyee nga xamante ne dañ ko teg loxo ci ndakaaru yéenekaay bi di wax ci pëccëxoo bi nga xamante ne dañu ko nemmeeku ci institution yi nekk ci réew mi waaye tamit douane ak la pharmacie mi nga xamante ne ku ci nekk ma ngay jam sa morom baraamu tuuma ci 24 heures Alioune Tine di tuumal nguuru Sénégal ay doxalinu yaama neex waaye tamit mbiru parparloo naka noone lu ñuy nemmeeku ci réew mi lu bon ay kilifa di caxat-caxate alalu askan wi ñépp di ci teg seen gët te kenn du ci tekki ndombal tànkom wala sax ñu teg ko ay daan Lamine Diack mi ñu teg ay daan ca France gi mu nekk ay at a ngi nii ay see jaraaf ko fas yéene teggi ndax caution bu tollu ci ñetti téeméeri million ak lu teg Sud Quotidien di xam ne ma fay ngir ma mën a ñibbi këram Hissène Habré moom mënata ñibbi këram ndax yéene kaay Communication bi dafa xam ne ni kon càkkuteefam ngir ñu may ko ab mbayub négandiku loole mujjuta antu li dul antu kay mu ngi ci libération mu yab usine fantôme bi nga xamante ne lu toll ci fukki milliards ci suñu koppar lañu fa def waaye mbiri daanaka jaarul yoon yéene kaay bi di xam ne ni kon mujj nañoo teg loxo matériel informatique bi nga xamante ne dañ ko fas yéene woon liggéeyee foofee ca Technopole li Sénégal liggéey ngir sukkaliyaat koom-koomam ngay xam ne ni FMI ci boppam daal dina koy rafetlu ci ab rapport bi nga xamante ne bécc nañ ko ñu def ci ab xayma ci réew Afrique sowu jant institution bi ci boppam wax nañ ci fan la réew yi war a jëm rax ci dolli lim na Sénégal ni bokk na ci royukaay yi nga xamante ay pexe yi nga xamante jël nañ ko ngir sukkali seen bopp jar naa rafetlu liggéey Aliou ndaxam dañ koy rafetlu tey ji lay leer ci altine gi ndax réunion comité exécutif bi nga xamante ne fédération bu football war na ko amal ñu war a àddu ci ëllëgu Aliou A bi dëgmal ak yeneen ponk yi nga xamante ne maître Augustin Senghor dina ko waxtaane ak comité wam Gaston Mbengue li mu waxtaane ak waa suñu làmb moo ni dootul fayati benn mbër lu yees téeméeri million ci biir yéenekaay bi tamit ñuy xam ne ni combat diggante amaa Baldé ak Modou Lo boo moyul ci weerub décembre lañ ko war a amal te fii ci Sénégal la war a doon suñu làmb di fësal plan yu yees yi nga xamante ne Luc Nicolaï amal na ko ci bile combat lu mooy làmb ji Balla Gaye am na beneen combat manageram Aziz Ndiaye mooy xam ne ci Les Échos ni doomu bi moom